bo jëloon conseil interministériel bu daw ak bu daw jek bu dawati jek ak bu ren mbir mi nim nimu téré won rek la téré ba légui kon loolu woné na ni problème bi nga xamné ne ñu taxa dajé ba tay ji gouvernement Sénégal songu ko ko won nim ko wara songé songe kon même format conseil interministériel yi limu findé moy

te fépp foo xam ne suñu koppara nga fa dinañ ko fa jëli bu soobee yàlla moo xam ci suñu ressources naturelles yi nga xam ne ñu ngi koy saax saaxe wala yokk suñu capacité mobilisation ci wàllu l'impôt réduction du train de vie de l'État waaye it xaalisu réew bi nga xam ne nekk na ci loxo yi mu warul nekk ay nit randal ko cent 117 milliards ñu def ci lutte wala ci construction ay ouvrage d'assainissement yooyu dinañ ko saytu bokk na ci yi nga xam ne ci fan yi di ñëw dinañ ko auditer ba xam 717 milliards yooyu fan la dugg parce que loolu lu am solo la ñaareel bi mooy ñu fexe ba li ñuy wooye li ma wax léegi tuddee ko indiscipline mooy lu ma neex laay def ci réew mi loolu tam jeex fi rigueur bi nga xam ne war na cee am moo tax fi may daaneele mooy kenn ku nekk ci kilifa yi fi ne yor ndombal tànk ci askan wi ñu wóolu la jox la ko kenn ku ne maa ngi lay ñaax ci nga doon ab patriote mooy nga bëgg réew mi ndax ñun amuñu lu senegal Sénégal bëgg réew mi nag mooy non seulement li nga warloog askan wi nga def ko te doo xaar ñu ne la def ko mais nga def lu raw loolu nga yokk ci parce que lu tax changement mënul ñàkk mooy suñu toogee fii tey ñun di wax dafa fekk am na ay sénégalais yoo xam ne joxe nañ seen bakkan pour changement am ne serait pour ça mënuñ ñëw fii di yox yoxe bugguma di wax mu mel ni da ngay dànkaafu waaye damay wax ñaax kilifa yi fi nekk yépp ñu xam ni on sera très regardant sur ce que chacun fait et à chaque moment, les responsabilités seront situées et les conséquences en termes de sanctions positives ou négatives en seront tirées. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, d'après lancer une journée, le 1er juin, s'il n'y a pas de changement, bon, symboliquement, Sénégalais yëpp la ñu à commencer par moi, monsieur le président de la république l'ensemble du gouvernement pour lancer les activités citoyennes yu non seulement curage et évacuation mais le plus jëm c'est setal réunion. Lolo, amna am solo action bi action gouvernement